junniy at bés bu nekk nekk junniy at kenn xamul adat boobu ku dul yàlla bàyyi ba mu waxee loolu ba koy wax dafa julli shafa balaa moo julli witir la nee ne diggante shafa ak witir la ci atum junni ak ñetti téeméer ak ñeen fukk la ko bàyyi wax makastu miati elfi sanati min ayaami rabbi demal ci sirrul akbar wa nuurul abhar téere boobu nga xam ne moo gëleem loo borom xam-xam ku mag gi Abdoulaye Diedhi ba ca Mauritanie nee na moom ci tariqa xaadiriya la nekkoon di laajte ay di laajte mbiru xam yàlla saa bu laajee ñu jox ko lijaasa saa bu laajee ñu jox ko lijaasa muy wax si wa zaati la ahwa si wa zaati innani si wa zaati la ahwa si wa zaati la ahwa wan leen ma yàlla man jëmm yàlla gi laa soxla du kayitu bi mu jëm benn بعد تيري ما لا يوحني السر الأكبر والنور الأبهر في فائد وقت مكست مئة ألف سنة من أيام ربي وأنا أسمع الكلام الأزلي الأصحى مواجهة فتحيرت واضطربت لما اجتمع عندي من اللذة والألم فإذا أنا اندفعت إلى حضرة أشاهد فيها حقيقة حقيقة حقيقة الحقيقة بهتا طوشا في أمل ولم يبقى شعور بمحسوس وهذه يبقى مكسية يا li ko ci jaaxal mu ne lam cay dégg moom koy dégg lam déggul xam na ne moo déggul waaye waajaa ngi wax te borom xam-xam la wali yàlla mu gis doomu ba mu gis doomu baayam mu ne ko waaw sëñ bi kii nii waa ji defar téere bii nii fan la nekk mu ne ko Sénégal ban kaw la dimbali ma man kii laa doon wër mu ne ko lu tax nga wax ko mu ne ko parce que la muy wax la ma ciy dégg dégg naa ko la ma ci déggul xam naa ne maa ko déggul waaye waajaa wax <laughs> yóbbu ma ci kii kii laa ne ko bismillah ñu dem ba nekké ci yoon bi Abdoulaye djéjou ba xam ngeen Abdoulaye djéjou moy kan koku moy ki nga xam ne na ci Baye sa bu gisé Baye rek daanu am jës ba mujj gi dafay Baye ba Baye julli mom su ñibbisee mu dal di daagu ndank julli ndax mënul xol Baye ko xam Baye da ko bëgg waye da koy ragal motax mishri ne Tuubaa liman ahabbahu wa khafa ajana ñaan na kiko bëgg ba pare ragal ko soo xamee waaj rek ko ragal am na benn waaye borom xam-xam la balaa moo nekk taalibe Baay Chérif la woon daan ñaan addiya su ñëwee ne jonkorom ci kaw loolu Baay bi Baay di ko jox addiya waaye ba mu ba xam yàlla nee yi ko gën a métti ci àdduna mooy fan yam doon toog ca lalu Baay ba nee na kenn ñëwewul ci àdduna ba yegg ba yegg ko moom waa ji ñu yegg ba mbindeef ñoo mbindeef yan mu ne ak dunia wal axiratu alamun waxidu min tilka al awalim adduna ak alaxira soo ko dajalee benn mbindeef la ci juróom benn fukki mbindeef yu xut bu di def tasarrufu di gérer di gis lu yëngatu mu ngi koy gis lu wax moo ngi koy xam mu ngi koy dégg mu ne kon Cheikh Ibrahima su nekkee ne xut bu la hal huwa yaraana mu ne ko gisoo ci téere bi sirrul akbar fi bàyyi di wax ana nafsu wal afaqu mahma raaytaha taraani fa inni kullu fa inni kullu min indi rabbihi am na ñoo fa innil kullan kullan fa innil kullu min indi rabbi hii bi ba léegi hii bi laay laaj gaa yi firi borom xam-xam yi hii bi fan la dellu waaye yéeme ana nafsu maay bakkan yi du benn bakkan bi al jinsi yàlla al su duggee jinsi yàlla mboolem luy bakkan dugg na ci ci ku xam luy balaaga ana nafsu maay bakkan jëpp wala afaaku maay goox yi lu dundul garab yi montagne yi asamaan ak yeneen ma maara ay taxaar saa boo ko gisee waxul saa boo ko xoolee gaa yaa ngi xool waaye gisuñu gis sax xool bu benn bàyyi def ne araaka taraani bi haysu la taraani wa min al ajaa'ibi an taraani fala taraani bàyyi ne gis naa la yaa ngi may xool te gisoo ma bokk na ci kéemtaan nga nga xulli sa bëti di ma xool te fekk gisoo bàyyi ba bàyyi def ne ma maara ay taxaar soo ko gisee taraani nga gis ma dama ne bëri na kuy xol te giso gars dañu ne Barhama du cinéma bañ koy négee ngon xolal ci jaww ji foo xool gis fa Barhama yombewul non am na xol ci jaww ji poussière la gis. waye baye dañ ko wara a gis naam ndax moy jëm gox yi ana nafsu wal afa. ma raaytaha tarani fa inna kullu min indi rabbi way woykat bi ne iza kunta nafsal ufqi wal ufqa ba'daha فليس يرى الا جمالك نازر naziru su nekkee ne yaay gox yi nekk bakkanu képp ku mën a xool yow lay gis mu neex ko ak mu naqari ko bàyyi waa ji ne ko aha loolu gis naa ko mu wax ko mu ne comme comme mooy bakkan yi mooy goxi kay moom ñuy gis ñu continuer dem waa jàng ngi yàkkamti pour gis bàyyi ba ràbb benn xasida ci mbëggeel gi mbëgg bàyyi la yegg yàlla te yeggagul ci bàyyi naam mbëggeel dana def loolu mhm. mu ràbb benn xasida yi wax bi hubbi cheikh ibrahima hiimu ففي الأحشاء منه هوى مليم ولا تلفوا بساحة غيره ما بساحته هدى لكم قويم إيه. بقصر بجيق مدن باي وقت أيا برهام عبد الذات إني إلى جدواك مفتقر عديم وآمل توبة وهدى وفتحا ومعرفة تزول بها الغموم وجذب تواصل يفنى ويفنى ويفنى حيث تنأدم الرسوم بام يجي تي باي وي قصيده بي بام باري باي نك اوقفني الله وياك بين يدي وقفه خالصه يوم القيامه نان يالا ماك يو يالا تخوال ني تخواي بو سل كانمام بس بنتم يالا وا جوجو دران باي باي جولي مودوغا دم جولي بن بس باي جولي دي لازم ياكاني باي генنا باي لازم با بري دي ген موي دوغ رك دالك باي رك ني رلي تي سوف باي تيتي لوخو بي يكتي كو عبد الله القطب لا Abdullahi xutbu day dëgër yow xutbu nga xoolal Abdullahi lay wax xutbu kon gaa yi wax ndax bàyyi xutbu la wala du yow ñooñu dañuy théâtre kii di wax Abdullahi al xutbu la yu jabu xutbu du am jas bu xutbu day dëgër xale yi ñoo war am jas mel ni ay xob su ngelaw li naawee ñu naaw yow da nga war a mel ni doj ndax xutbu nga koo xam ne yaa ngi gérer ay awaalim kon da war a dëgër mu xulli ba di xool baay ba si yàgg ne <laughs> la muy gis ak laa ilaha li ma ko wax mooy euh, mooy juróom-ñaar yooyu di bàyyi te Ibrahima mooy yooya mane ne yooyu laa toll yooyu laa tombeel euh, bi mooy septième édition bi ñu ci macha allah sant yàlla ñu dox tuuti dem ci juróom-ñaari ndaw ya nga xam ne dañoo nelaw alxuraan ko nettali karaamal ñooñu duñ ay yonantu déedéet ba ba leen buur bi bëggee fanal ñu daw làqu ci xuntu nelaw ba. yàlla nelaw loo leen ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent maa lay yëgal leen ñetti téeméeri at lañ nelaw ci atub jant waaye su nekkee ci atub weer la téeméeri at yu nekk ci atub weer dana ñett téeméeri at yu nekk ci atub jant weer moom dana ci yokk ñett ndax fanu weer moo ëpp fanu jant ndax fanu weer at bi at at yi nga xam ne mu weer bi moom lay am fan yi nga xam ne moom lay mu weer bi di am sandun la sandun mooy ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ayaamuha sandun mooy 354 ci atum weer ci atum jant nag 300 365 euh, euh, la mooy ayaamuha sax kon comme que su nekkee ne atum euh, bés ci atum jant la ëppee kon ndeke jant su amee téeméeri ak kon xamal ne weer wi dem na multiplier ba amaat yeneen ñett ñetti am saa atum jant amee téeméeri ak xamal ne atum weer am na téeméer ak ñett kon suñ nelawee ñetti téeméeri at lan lañuy yokk ci at yi ci atub weer mooy juróom-ñeenti at téeméer wu nekk ñetti at moo tax bàyyi lim dund su nekkee ne ci atub jant la bàyyi jant la soixante-quinze ans la dund su nekkee ne ci atub weer la bàyyi ngi dund soixante-dix-sept ans parce que su amoon téeméeri at moom bàyyi dana am téeméer ak ñetti at comme que amul téeméeri at 75 ans la dund ñu yokkal ko ci ñaar ñaari at ci atu ci atu weer moo tax su nekkee ne 75 nga wax 75 su nekkee ne moom nga wax loolooy kun soo ko firee mooy kun mooy dëgg-dëgg mooy xaqiqa su nekkee ne 77 euh, ans yi nga indi loolooy kanzu kanzu nag mooy koom-koom mooy trésor mooy man magasin denc lu bëri ñaar yooyu yëpp nag am na benn wali yàlla bu dund ak baay te jeex ci baay xam baay lool mooy Mouhamadou Michri woy na ko baay te moo njëkk a génn àdduna baay mu woy baay woy ko ci ñaari façon yëpp pour wone xam nga karaama ku amoon ci jamono Cheikh Tidiane soo ñëwee ci baay dañ ko ci fekk dafa wax dundug baay wax ko ci bayt bi ne kanzul haqiqati kunhuha wa muraduha nafsul baqaai wa ruhuhu wa hijaahu mu ne baay mooy kanz mooy kunhu comme na ibu jub génn adduna bàyyi ci London fanweeri at tegu ci bàyyi di doog a génn Cheikhu Tidiane Ali Harazim waxoon na atam yi muy dund ndax Ali Harazim ne woon na Cheikhu Tidiane dana danañ ko yokkal ñaar fukki at ci at yi nga xam ne moom lay waliyu waliyu di ràmm ci jamono waliyu yàlla daf lay may jamono gi nga dund nga ràmm ña nga bokkoon jamono gi Ali Harazim avant moo génn atam moo njëkk génn adduna Cheikhu Tidiane mu ne waaye Cheikh Tidiane yàlla def ko ci yokkal yeneen ñaar fukki at mu nekk téeméer moo ko wax balaa moo génn at mu nekk téeméer kon kay kii xam na lan lay Cheikh di war a dund comme que ci yokkee ñaar fukki at rek mu nekk téeméer te Cheikh Tidiane a ngi di waxtaan ne yàlla may na ma ne danaa ràmm sama jamono benn waay toogoon ci jotaay bi ne ko ak yeneen ñaar fukki at rek Cheikh Tidiane ne ku loolu mu ne Ali Harazi moo ma ko nettali waaw Cheikh Tidiane dund quatre-vingts ans soo ci yokkee vingt ans la ñaata lay nekk téeméeri at affaire bu doy waar Ali Harazim dafa indi masala riyaadiya masala mathématique boo xam ne dafa nuroo bi Zarqaul Yamama defoon Zarqaul Yamama benn jigéen la da gis lu ñuy doxee ñetti fan dafa jékki-jékki moom Zarqaul Yamama ay ay pitax naaw mu ne pitax yii nii xam naa ñaata lañ ñu ne ñaata lañ mu ne pitax yii nii niñ toll seen lim soo ko xaajoon seen lim soo ko xaajoon nga jël benn xaaj bi dolli ci ñoom ñu mat 99 nga yokk ca cent pitax ba nekk kër ga mu nekk téeméer kon xam nga yi naaw ñaata parce que yi naaw soo ci yokkee seen genn wàll ñu nekk 99 kon yi naaw ñaata la yi naaw soo ci yokkee seen genn wàll ñu nekk 99 kon 66 ay naaw 66 33 mooy genn wàll. 33 فوق يوم كجي 66 من هيك 99 من احكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام شراء الوارد السمدي قالت الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا او نصفه فقدي فحسبوها فالفوها كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزد جينا كان جنو لي مي زرقاء اليوم مي مساله بقول علي حرازم ديك شيخ تجاني يلا ماينا كومرام مجمرام اك يينن نيار فكيات تي كان لاي واخ moo ngi dund gis nga ni Ali Harazim xamee woon dund bàyyi te nekkoon xalifaam mhm. yoroon xamoon lu bëri ci moom wala yàlla yi jege woon bàyyi yàlla xamal la leen bàyyi ñaata at lay dund ndax su ma ñemee woon sax damay wax ñoo ngi woon ak moom balaa tey te su tey passé dañu dellu nekk ak moom kon ñooñu war nañ xam ñaata la fii bàyyi di nekk koo xam ne yaa ngi doon dund balaa ngaa judd soo deewee deewoo yaa ngi dund koo xam ne yaa ngi doon dund avant ngaa judd ku yaakaar ne dee nga ba nga deewee rek réer nga ko soo déggee ñuy wax bàyyi bokk na ci kéemtaanam bàyyi karaama wali yàlla yi dañ koy nettali waaye mosuma cee gis karaama boo xam ne yow ñëwagoo ñuy wax say mbir karaama boobu moo gën a màgg ci karaama yi pour man demal ci Ghana Ghana benn wali yàlla bu tudd Cheikh Umar Karkouki Cheikh Umar Karkouki wali yàlla moom moo njëkk a génn àdduna boobu balaa bàyyi di juddu maanaam moom moom ak bàyyi dafa lan la wax mu ne leen soo demee ci téere tudd Ithaaful Ixwaan da nga fekk foofu wax ji wax ji ñu wax ji rek am na téere gu guñ ko jëlee dafa toog ak gars yi ne leen sa yazharu waliyun bil maghribi an qaribin bi qalil dana am waliyu yàlla bu génn ca soow jant ci jamono bu jege lool man nag duma ko fekkee dama booba génn naa adduna mu xool benn waaye ci ñi toogoon alxaji gom naa la tudd mu daal di ko wax eh yow alaaji Gomna mu ne ko ah mu ne ko yow da nga daje kamay wax te booba yaa ngi ci sa ci sa màggetaay yaa ngi commencé màgget alxaaji Gomna moo ngi gànnaar day toog rek fàttaliku bàyyi rek daal di jooy ne wallahi amul si keneen Seydi Cheikh Umar Karki waxoon na bàyyi ba mu leer nañ te kooku daanaka moo ko mujjee wax ndax avant mu koo wax ngand mi di Cheikhu Tidiane wax na sa yabruzu rajulun min taifati wallahi laa yorofu fi dunia wala fi axira benn góor rajulun di nakira góor nakira soo xamee mu dajeeg alladi ba nga xam ne mubham la benn góor dana génn nakira dañ ko indi li taazimi fa wajada abdan min ibadina abdu bi di nakira nakira bi li taazim aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman Cheikhu Tidiane benn góor dana génn sa yabruzu rajulun mu daal di waxaan waxuma góor googu sax waaye taifatun min ashaabi law ijtamaa akabiru aqtaabi ummati muhammadin maa wazinu charata waxidin minhum am na benn kuréel ci sama taalibe yi dana ñëw soo boolee xut bu xeetu yonent yàlla muhammad ñoom ibnu arabi xaatami ñoom xuseyri yi ñoom abul xasan yi yi soo dajalee ngand yooyu mënuñ peese benn karawu ga ci gaañooñu maanaam ñooñu waxul imaam bi de waxul borom faydu bi de ñooñu faydu gii nii xam yàlla gëm te ñooñu asxaabu kahfi dañoo nelaw ñetti téeméeri at yan ñetti téeméeri at téeméer ci alamul ilahiyati téeméer ci xaqiqatu al muhammadiya téeméer ci xaqiqatu al ahmadiya ñu yokkal leen ci juróom-ñeenti at borom faydu daal di ñëw ñu yeewu ba ñu yeewoo dootuñu nelawati ba abadan ulaayika hum asxaabul kahfi humoo fityatun baa'u nufuusa li rabbina alquran ba muy nettali ne innahum fityatun amanu bi rabbihim ñooñu fityatun ay ndaw la alquran wax باي باموي وقت عالي بيومي لما همو فتية باء النفوس لربنا قانيو ني اي ندو لن باء النفوس جاينا سين بكن لربنا انجري يالو دمنا لو تشخون من نيتي تيميري اب ما دا دي فك بنت بي يلين فك وكل بهم باستون تيرا اي دي بيوسي خلقنا نقلبهم ذات اليمين وذات السمالي من مالي دون ولبتي بسو تم خاري ndey jor jëm chamon chamon jëm ndey jor ay at سوخول اصحاب الكافي ديكا فك نيو ني اصحاب الشيخ ابراهيم عبد الله كون ديكيت اصحاب الكافي دانيو نيلو نيت تيمير ات يالا نيني وداد تيس الما يوكل لين تي جوروم نينتي ات اي بو ييمي ييمي ييمي واو كان مو خمال يدل تي بي سنه شمسيه سنه القمريه اه مو جزا الله الشيخ الحاج ابن محمد المشري خيرا حاج مشري تمع تمولان يالا فاي لو باخ moom masala bi def ko tax di ndeysaan woy ko eh, ci ñaari bayt yu rafet ne mujaddidul qarni istaraha minhu wa umruhu kanzun wa fihi kunhu wa minhu kunhu sax mujaddidul qarni istaraha minhu mu ne ki beesal qarnu gi noppaliku na génn na adduna waaye umruhu kanzun umru bi 77 ans la waaye wa fihi kunhun waaye nekk na ci kunhu mooy 75 ans rek baa bi mu ne zaada alal abil azim al qadri bi sanatin ma shamsu mislul badri zaada ëppale na alal abil azim al qadri raw na baayam moom Baay Ñas magee na baayam bi sanatin benn at baayam magee baayam benn at te suñuy lim karaama nañ njëkkee booba ndax Baay bind na ci lettre ne man maa magee sa maa maa mag sama baay danaa dund li ëpp li sama baay dund bàyyi ko wax ba mu bindee lettre bi ak ba muy génn adduna ca London ñu xool 40 ans la kan moo fi mën a assuré boppam ne balaa moo génn tànt bi dana dund يونس بن الموت اقرب الى احدكم من شراك نعله دي مو غنا جيغي كين دي سين تي بكانو دال سا دال بيغا سال بكانو دال نيم لا جيغي دي لا كو غنا جيغي ونحن في سفر نمضي الى حفر ونحن في سفر نمضي الى حفر والموت شيء لنا قرب الى العدم الامام شافعي نيني دا فا ملي تي تيكي لا نيك نيغي جاب نيغي تي تيكو واي نيغي جيم تي اي اي باك اي اي باك فوتول رك جابال مي ياغي دي ndeke kam daahikin wal manaaya fawqa hammatihi law kaana yaalamu xayban maata min kamadi bari na koy xaqataa di reetaan dee ngi ci digg boppam di xaar su xamoon luy ñëw ëllëg konoon mu dee naqar waaye gi jooy nit ki dee def kàppaat du xamu ci dara alfaalu wa zajru wal kuhaanu kullihumu mudallaluuna wa duuna alxaybi akfaalun ñay seet ñay listixaar kuhaan yi ñoom ñëpp dallalu na kenn xamul ëllëg wa duuna alxaybi akfaalun suñ diggante xaybu ay caabee ci nekk kenn xamu ko bu bàyyi taxaw ci 40 ans ñeent fukki at avant muy wax ne bañ ko bindee waqaf alal maknuni wa inni samitu min lisani man la yantixu anil hawa an la yadurrani maxluqun kainan man kaan wa inni utitu umran atwala min umri walidi فلولا أني مراد الله فلا أحبه لما في هذه الدار من الكدرات وأبشركم أن لا يقع إلا ما تحبون وترضونه فإن هذه الفائدة فائدة تجانية ستنبسط في الأرض وتؤم جميع الآفاق فمن أراد أن ينفر الناس عنها إنما ينفر الناس عنه لا عنها والسلام على إبراهيم بن يسد كولخي باي وقت دفي كارانتا نجيس نالين بند نخجاي رنيو تيتون أي ليجي ينجيسون كيرو باي بند كوليتر نا danga tukki de waye jogol ci sa bop ndax non yi def nañ ni def sañ na les sunu nañ fi li nen ay keri ak ay diwlin ah xam leen na ci gën a jekk yàq nañ lu bëri kër yi ñan nen ak diwlin ndeysaan hmm? loolu lañ fekk ñu suul ko ci eh, këru Baye Niass ah ñun duñ ko fooyee ca daara ko amoon amul xam nga yenn yi tardé sa bokk la Cheikh Abdoulaye Dia te boogee ñoo ngi wasifa ndeysaan am kenn ci xaam yi ñuy weddi ñuy xeex faydu bi ñëw rek jël ay beñam sotti ko ci seen wasifa bi biñ paree Cheikh Abdoulaye Dia ne jox leen ma ci benn ah jox leen ma ci benn benn waay sàcc dàllam yóbbu ko ngir liggéey ko ci bind ci ay xarfa foofa ba mu fees yónnee waat ko ko benn xale indi ko ne ko diwala jox mun a yóbbulaat ko beneen bi mu bindaat xam nga ku yàlla préparé da ngay sonn rek da ngay tëb di dal di bëgg a taxawal àllaaxira fi taxawagul waaye dara du xew. Ah. Baay Ñas nee ne waqaftu alal maknuuni gis naa li ngeen bind waaye nag xam leen dara wa man samitu min lisaani man laa yantiqu anil hawa دغنا تي لامني كودول وقتي بانيخو باكانم كوكاي كان ماي رسول الله الا يضرني مخلوق كائنا من كان من كو يالا ساك مانو تي مانداس لا يضرني مخلوق كائنا من كان فاني اوبيت عمره سيرك تي باي رك غيسغي سونغين غيمي ني يين يينغي تي باي سو غيمي ني يانغي تي باي كان مانو تي ودرا داخ باي موني استودي الله احبابي يهوتهم بهفزه حيث ما كانوا بدوا قرب استودي الله ما من دكنا يالا احبابي سما تاليبي yahuutuhum bi hifsi daf leen di léemu ci muslukaayam xay suma kaanu fuñ mën a nekk ba daw wa xaraw fii ba xombal yaa ngi dégg taalibe Baay fu mu mën a nekk soo gëmee ne yaa ngi si Baay kenn mënul si dara Baay nee na gis naa li li ngeen bind maa ngi leen di yëgal ne man dégg naa ci làmmeñu ka nga xam ne du wax ci bànneeku bakkanam an laa yadurrani maxluqun kainan man kaan wa inni utitu umran atwala min umri walidi yàlla may na ma dund koo xam ne moo raw sama dund papa yi Baay wax ko ba muy génn àdduna ba muy wax lii 40 ans te yàlla xam na ne ëllëg kenn xamu ko moo tax waa ji ba gisee bàyyi daw sànjaab ko ndeysaan di ko akolaat di jooy man dama déggoon ne da nga daan tukki yéeg avion avion bi daanu booba léegi maa ngi naqar bàyyi na ko bés dana ñëw ma dee waaye saa boo déggee nit dee ci avion xamal ne du man noppal gis ngeen kooku ne nit ki dana xaritoog yàlla kës bu daa am kës bu daa am ci karaamee la ko Seydina Umar ibn Xattaab moo ngi taxaw xutba ci Madina boobu moo ngi yónni benn waay bi Saariya ibn Sulaymin al-Xajali mu ngi ca Faris ca Iran pour mu xeexi jeeg noon ya Seydina Umar a ngi taxaw ci minbar bi moo ngi seen Saariyatu ca Iran muy xeex ak noon ya mu xam ne Saariyatu su ñëwul ci wetu doj bi dañ koy gañe muy xutba ba si yàgg noppi gars yi dañu Umar di noppi mu jékki-jékki ma Umar di wax Saariyatul jabala Saariyatul jabala man istar al-ghanama sayba faqad zalam Saariyatu doj wa aljabal man istar azibal xanama képp ku jël tëll jox ko pour mu sàmmal la ay gàtt fakat zalam tooñ nga tëll du sàmm gàtt demal weeru ca doj ba saar ne nee na kàddu gi waaye xamul kàddu gi fu muy jógee ba ñëwee di nettali ñu ne ñun de dégg nañ Umar moom ñuy woo di wax saar yëpp ñu ne ñun de Umar dafa xutba ba ci yàgg di wax saaree te ñun xamuñu kan lay waxal li ki yow la def mu ne wallahi dégg naa kàddu te gis nga ba su toogee di wax loo xam ne digganteem ak bam ba mu ñëw 40 ans la du yéeme ndax dana yéeme sax نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد mashhadi yonent حسان xasaan nee ne بعد داكو دون نعم فمنه اتاني العلم والفيد والجدال وقد فقت في الإلفان من كان يعرف بعد دا يرن تبي بي تي حسان نينا يونتي بي نبي يونتي لا يرى ما لا يرى الناس حوله داي توك دي غيس لي نيت كتاب الله في كل مشهدي وان قال في يوم مقاله غائبي فتصديقه في ضحوه اليوم او غيره دا بعد باي بام واخي لولو غيس ني ريكا لم مو ما شاء الله دا نغيس كشفو كشف نعم kashfu am na mais bii ni karaama bii ni benn gën ko rëy ci karaama yi bàyyi ñëpp suñ koy lim bàyyi leen ci xel su ngeen di lim karaama bàyyi ëllëg nee leen bàyyi nan la mën a jëlee pilimam teg ci kayit ne man maa magee sama bàyyi maa mag sama bàyyi maa mag sama bàyyi la wax mhm. te bàyyam moo ngi ah, amoon juróom ñaar fukki at ak juróom benn tax li man bàyyi eh, ñëw dund juróom ñaar fukki at ak ñeent bàyyi ñëw dund juróom ñaar fukki ak juróom bàyyi mag bàyyam mu dégg euh, lettre bi ak dund bi yëpp déggal ko ba xaaj misir di wax zaada alal abil azibil qadri magee na bàyye mu màgg daraja bi sanatin benn jant benn at mu daal di teg nag ma chamsu mislul badri waaye nag weer bokkul ak jant weer bokkul ak jant wax la mooy su nekkee ne jant 77 ans la dund 75 euh, ans la dund su nekkee ne ci atub weer 77 ans la waaye ba léegi jant ak weer bokul alaji abdoulaye màgg na lool waaye bàyyi moomu moo ko a màgg ngeen baal ñu ci waxin bi ndax bàyyi bépp wali bu dul Cheikh Tidiane ginnaaw bi Cheikh Tidiane passé bépp wali yi ba bés pencum yàlla ku ñëw ci ron tànkam ngay nekk gis nga zaada alal abil azimil qadri bi sanati ma shamsu mislil badri ak ak jant nuróowul ak jant nuróowul ak weer baayam moom ala jablaay baayam Serigne Mahi Niass moo a nettali si suñu gàmmu 24 décembre fii ci Mermoz avant ñoo dem ca gàmmu ga ñoo ngi toog ci salle bi mu ne ma alhaji abdoulaye ñas ko jëndal njabootam yére yi julli te julli bi di tombe besu àllarba te mu ne ñun ñafeen yi besu àllarba duñ ci daloo yërewu bees sëriñ maaxi ñas mooma ko nette mu daal di woo xale yi njaboot gi ñëpp mu ne leen suba la julli di àllarba yéen ñëpp jëndal naa leen yére yi bees pour ngeen daloo ko suba àllarba waaye ñun nag baaxoowuñ di daloo yére bu bees besu àllarba kon nag dama leen koy dencal ma jox leen ko yi ne baax na ñoom ñëpp ñu doon jóg dem ndeke bàyyi ngi toog ba ñëpp demee bàyyi toog bañ a dem moom ala jab laay xool ko bàyyi ji mu xool ala jab xool ko mu xool ko ba saa benn yére sànni ko daal di amul bës de kooku amul bës. war bu bàyyi ba gaa aye mu ñëw nee koo xam ne soo aye kenn dootul aye da ngay mujj aye kooku amul bës inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kooku ca bësub yàlla ya te benn bés ko fa junniy at la amul bës mu ne ko yow amoo bës karaama gënu ko waaw karaama gënu ko Serigne Aliou Cissé nee na dégg na ci làmmeñu kum wóolu demal ci Kashful Albas dañ ko gis ne kooku nee dégg na alxaaji abdullahi ñes waajuru bàyyi nee yaakaar naa sama sekkere man alxaaji abdullahi jigéen ji moo koy jur jigéen ji mooy yaay astu yaayu bàyyi ñes mu ne sama sekkere ki ma war a doon yaakaar naa jigéen ji moo koy jur ndax ci jigéen yi ma ci amu ci ku ko gën a baax Seydi Ali Cissé nee na ku moo ko ko nettali kooku tamit nee na alaji Abdoulaye moo ko nettali waa Diouf waaye dama ñu wax rek dafa am ko teg Serigne Ali Cissé nee na Serigne Mbaye Niass nee na yaayu moo ko nettali bi mu bi nekkee ci xëy bu ci moom ngeen baal ma ci kàddu gi dama koy rafetal dafa gis weer wi daal di dagg ci asamaan bi ñëw ñëw ci moom moom waajur Baye. تيري لو تيري سوني لابرم تيجي مم سيرين منك منك بيدا برام خم هذا ما شاء الله شيخاني نو تولر كم تالا نخيران تبي لو دالون نكو شيخاني نرأت أمه قمرا تدلى فكان لها بمنزلة الجنين فقيل لها اكتمي رؤياك فيها له فيه فقيل لها اكتمي رؤياك فيها له في له سر لشائنه يسير mu ne dara at mooy yaayu bàyyi gis na weer xamaran te dalla di wàcc ci asamaan bi ñëw ci moom fa kaana laha bi manzilati weer wi taxaw ci moom comme xale bi mu ëmb ba mu ko nettali ala jablaay ne ko nëbb fa xiila la haktumi ruyaaki lii nëbbal mbir mi waa ji mbiram yëpp dañ koo nëbb moo tax nag pour li may wax ni karaama la xewal na ci yonent bi yonent yàlla Muhammad amoon na te suñuy lim karaama wali yàlla yi duñ bàyyi bàyyi ñes des ci ginnaaw waaye karaama bi gën rëy ci karaamaam ba léegi des na waxaguñ ko yi rëy yi la tudd waaye bi gën rëy bi ñëwagul et gis nañ ci karaama umm Moussa yaa yonent yàlla Moussa kooku du yonent yaa yonent yàlla Moussa ndax yonent jigéen amul yonent jaam amul yonent bu gumba amul yonent bu lafañ amul yonent bu pàcc wala bu piite wala boo xam ne nopp yi du dégg loolu amul fala nabiyun qattu saa yu jabal axabtu law zu ahatin qabla nabaat bi du nekk jaam yonent bi du nekk yaa jigéen yàlla nag yonent yàlla Moussa yaayam yàlla Yohanis wala Halba bintu Rabba ñaari kàddu Yohanis la tudd wala Halba bintu Rabba waaye bàyyi wax na tur bi feneen ci bindu loxoom moo wax ba tur bi fi ko génnee mu yónnee kayit yi Seydi Ali Cissé ne ko nag secret bi laa tuutihi ahadin illa bi alfin wala wil hasan bu ko jox kenn lu mu jox la junniy dërëm donte hasan moo la ko laaj sa doom yaa yonent yàlla Moussa yàlla ne wa awxaynaa ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyam wala taxaafi wala taxzani inna raadduuhu ilayki wa jaa'iluuhu min almursalin man maa wax yu yaa yonent yàlla Moussa wax yu lii nii wax yu bicharatin wa karamatin lii karama la kon alxuraan ak ñuy nettali karama nekk jigéen dana am karama jigéen ndax dana nekk wali yu koy jagleel karama laa fi ni baax gis nañ jigéen yu mel ni rabetu nadawiya gas bàmmeelam wàcce ci ñaari junniy kaamil mu doog a dee ñu suul ko ci bàmmeel kan moo fi ñemee gas sa bàmmeel sax léegi soo gasee da yaakaar soo yeewoo rek da ngay ñaari junniy kaamil la wàcce ci bàmmeelam moom moom Rabiatu Tadawiya nag Hakimatu Dimashqiya moo doon sëriñam nga xam ne nekkite am na ay jigéen am na ay jigéen yu mag Hakimatu Dimashqiya moo nekkoon sëriñu Rabia Rabia moo nekkoon sëriñu Muazatu bintu Abdillahi Adawiya Muazatu bintu Abdillahi Adawiya waliyu yàlla la jigéen la Muazatu bintu Abdillahi Adawiya ñeen fukki at yëkkatiwul bëtam xool asamaan ndax rus yàlla ñeen fukki at ñeen fukki at nelawul guddi ndax ragal yàlla ñeen fukki at lekkul bëccëg di Lamboor moom euh, Muaazatu bintu Abdillahi al Adawiya du karaama nga yaakaar loolu karaama pour nga toog ñeen fukki at xooloo ci asamaan gi ngir rus ñeen fukki at nelawoo guddi ñeent fukki at lekkoo bëccëg loolu ku ko man loolu karaama la. moo tax Ahmad ibnu fukki at nee na moom gisul nangu maamum maamum moom mooy kiy julli ginnaaw imam ñeent fukki at ci tàppe du njëkk di lay gisul ñeent fukki at gisul ndongu maamum mais ndongu imaam rek lay gis maanaam moom ñeent fukki at su nekkul imaam moom ci sappe ju njëkk ji te yonent bi def ne law alimtum maa fi saffi l awwali lama wajadtumu illa bil qital su ngeen xamoon li nekk ci sappe bu njëkk ji du ngeen ko am lu dul ngeen buuxante xeexante doo ko yoo xam ne duñ ko mais nag ummu Moussa yaayu Moussa mooy ci xaqiqa mooy yaayu Baye radiyallahu anhu Baye Ñas yaayam dañ ko laaj loo mokkal ndax jàngoon na xadiis yi loo ci mokkal mu ne mokkal naa yu bëri waaye bi ma ci gën a ràññee mooy zamzamu lima shuriba lahu zamzam soo koy naan loo ci yéene loolu la la yàlla di may boobu moom gàdd naa bu baax am ku aji woon màkka may ko ndoxu zamzam mu woo Baye Ñas mu ñëw mu ne ko yonent bi nee ne zamzamu lima shuriba lahu xale la booba bàyyi ma ngi dund zam-zam li ma shuriba lahu yonent bi nee zam-zam soo koy naan loo yéene moom la yàlla di defal maa ngi lay jox ndoxu zam-zam bi yaa koy naan damaa bugg nga yéene yàlla desal ci sa dënn bi xam-xamul yi te fekke wa anta fi xayaati waalidika sa bàyyi ngi dund génn bu adduna yéeneel yàlla dëkkañ xam ci sa dënn ci sa dund naan ndox yàlla nangul ko jox ko lijaab kan moo jàngal Baye ginnaaw Baye kenn amul kenn kuñ Moussa kay waane ba ne Baye ñëw na ci daara sàngam jàngee abadan kenn jàngal loolu karama la suñ duggoon ci luy umu Moussa ci xaqiqa waaye dama am foo bëgg ñu ñëw moo tax dañuy bérébu rek euh, Seydou Seydina Aboubacar ne Siddiq yàlla may ko kashfu ci kashfu la bokk ba muy fe ba muy feebaree feebar ba muy génn la woo Aïcha fi ne ko mayoon naa la tool bu yaatu toolu tàndarma jëli woo ko woon nag ba léegi feebar naa sama feebaru génn àdduna te charia def ne nit ki la mayee jëli la may ba mu feebar feebaru génn àdduna loolu moomatoo ko yow ak ña muy doon ña koy doon yéen ci yéen mu ne ko kon nag maa ngi lay yëgal ne kon tool bi ndono la ci ndono gi la bokk ñi may doon nag ñaari góor la ak ñaari ak ñetti jigéen ñaari góor la ak ñetti jigéen mu ne ko ah, ñaari góor yi mooy Muhammad ak Abdourahman naam xam naa asmaaw tamit sa doom la dana la doon ak man keneen ki kan ndax amu ko woon doom bu jigéen keneen ku dul asmaaw ak Aïcha mu ne ko keneen ki kan mu ne ko sama soxna di zaatu batni dafa ëmb nag waaye yaakaar naa jigéen lay lay lay jur boobu juree mu nekk jigéen seen Abubakar xikaay bi soo demee ci téere xadiis sooy liir kashfu da nga fekk yàlla may na ko Abu Bakr mais li ci gën a yéem xam na ne dee dee benn yoon wax na maradul mawti balam ko mooyoon comme que jëliw ko moom ak ña koy doon na wax yem mu waxaat encore ne soxna si dafa ëmb te yàlla xamal na ma ne li muy war a am jigéen la kooku juddu di jigéen moo tax mu mu ne ko ña may doon ñaari góor la ak ñetti jigéen te boobu kooku koy war a doon moo ngi ci a xam ne ndekete ah inni ara min faydihi l-yawma faa'idan falam yulfaza qalbi nazifin wa wasain waaye boobu faydu gi daanoogul de waaye wa inni man ara maa ngi seen ara boobu kenn du ko fi dee gis sax seen la ndax yegg seegul woon wa inni ara min faydihi l-yawma faa'idan gis naa benn waaye ngi taxaw ci faydu Cheikh Tidiane bi di di tàmp rek di sotti falam yulfaza qalbi nazifin wa wasain maanaam ñëpp dañuy lab ci géej gi ñëpp raxas seen xol yi ca yàlla bàyyi taxaw nee na inni ara shay'an ya'ti fi l-mustaqbal fa ka annahu indi bi manzilati l-maati innahu man lam yasluk maslakakum haada yasluk wa yandam gis naa mbir a ngi ñëw te yegg seegul moo ngi mel ni ci man paase na ndax ni ma leeree mooy ku soobuwul tarbi xam yàlla comme ni ngeen koy defee mu def ko rëcc lu taxoon def ko depuis jamono bu yàgg ndax tarbi ak yegg yàlla ak xam yàlla loolu yëpp yokkute yokkute nag soo ci yéexee ñëw da ngay rëcc lu taxoon duggoo ci depuis jamono bu yàgg ku nekk bëgg lu baax waxa bàyyi gars yi bañu ñu bàyyi dañ ko xamul bañu ñu ko dañ ko xamul moo tax kash bu dafa am Seydina Omar wax nañ ci kas foofu sànq mais bàyyi ñes gis nga kas benn waaye Mouhamad Abdoulaye Mouhamad Moustapha Abdoulaye ca Mauritanie nee na dafa jaaxle ci diggante xaq qadri yow miqdaaril azim dafa jaaxle xaq qadri yow miqdaaril azim ñaari maqam yooyu bu gën sa morom am nañ meloo yaa ngi dégg de mu dem ci Cheikhaan Cheikhaan ne ko demal kaw la demal kaw la waa ji ñuul jooju kóori googu firil la luy xaq qadri ak miqdaaril azim mu daal di dem ci misri misri ne ko demal Kaolack xaqatal di dem nag daal di moom soo ci bëggee la leer demal Medina Baye waa jàngam moxte mu la dàllam ñëw ba mu ñëwee fëgg bint bunt bi kalifa ya ngi bés bàyyi ci biir néeg nee na bàyyi def ne bërëb dafa mel ni xam nag waajoy ñëw mu ñëw rek ni kàcce bunt bi ne ko yaa waarisan yaa faarisan midmaari inni aqulul qadra kal miqdaari yaa waarisan yow mi doon góor yàlla yu baax yi yaa faarisan midmaari yow mi nga xam ne njàmbaar waruwaay mitmaar bi nga ci gaañ nga bok maa ngi lay yëgal inni aqulul qadru kal miqdar maa ngi lay wax ne qadru dal mom moy miqdar qadru yonon ci la miqdar cheikhou tijaan la inni aqulul qadru kal miqdar qadru moy miqdar bi ñoom ñaar nag bu leen bëggee yegg ci kasi si ka leen boole ka ka leen boole ka boole qadru ak miqdaar soo ko bëggee xam yegg ci nga ci mom ci dëgg ko gis nañ Ousmane am na kàcc macha allah am na karaama bañ koy waajalee Ousmane Seydina Ousmane bin Affan nee na yonent bi feeñ na ma ci fenêtre bi léegi nee na ma yow da ngaa woor waaye ci ñun ngay dogee tey ñu rey ko mu daal di dogee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kàcc bu la Ali ibn Abi Talib Abdurahmanul Muljam al-La'in ki rey Seydina Ali Abdurahman ibn Muljam ki rey Aliyu Aliyu ngi toog ak gaa yi waa ji romb Aliyu ne leen gis ngeen waa ji ñu ne quoi ah, mu ne kii moo may rey ëllëg waaw jóg jóg rey mu ne kon ku may rey ku may rey kon su ma ko reyee ku may rey moom xam na ne waa jee koy rey yàlla xamal na ko ko ndax yonent bi dafa toog ak yonent bi ah, yonent bi ne yaa Aliyu ataarifu ashqal awwalin Aliyu xam nga ki gën a texe xaj ki gën a bon ci njëkk ñi Aliyu ne ko Xuddaar ibnu Saalif aaqiru naaqati naaqari naaqati Samud Xuddaar ibnu Saalif ki ren di gëleemu Samud di kooku moo gën a bon ci ñu njëkk ñi mu ne attaarifu ashqa al axirin est ce que xam nga ki gën a bon ci ñu mujj ñi mu ne allahu wa rasuluhu alam yàlla ak yonent bi ñoo ko gën a xam yonent bi jël loxom téye ci sikkim bi ne ko man yu xabdiku lihyataka min dam kii taxal sikkim bii deret moo gën a bon ci ñu mujj ñi alayhi summa alayhi dahra muttasilan لآئن الله إسرارا وإعلانا إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألأن أبطانا وجمرانا يلا يلا ربكوكو ku toll ni Seydina Ali ibn Abi Talib nga xam ne mooy baabu madinatil ilmi buntu dëkk xam-xam ibnu ammi rasulillah baabul maarifati muy yëg li nabii aliyu baaba fa innakum mu lizaakal baabi baabu naar bi nee na su nekkee ne buntu ba ca yonent bi mooy aliyu ah fa innakum mu yow ba baay lizaakal baabi baabu buntu boobu yaay buntu ba maanaam rek la bëgg a wax ne xam yàlla yonent bi aliyu la ko dénkoon parce que Seydina Ali moom wax na ko def وقد تقدم في هذا أبو abu إلى حسين husaynin قبله الحسن qablahu lxasana يالا تيسي xam yàlla tey si jamono gi nañ waxante dëgg rek ki ko yàlla dénk mooy Baye Niass radiallahu daanaka mbir mi yegg na fa xam ne soo ko feeñalul tamit feeñal la boppam waaw soo ko feeñalul feeñal la a da ngay ñëw ci Maulana Cheikh Ibrahim yes. radiallahu am na jamono maa ngi def Eh, émission ci benn télé waxtaan débat ba muy jeex waa ji ne ma looy mottalee sa waxtaan ma ne ko ne nit ñi dem Madina Baye jël seen kurus bi yu xam yàlla loolu laay mottalee wax ji pour noppal nit ñi rek parce que wiiri wiiri bi ndax bàq du chey ilaa yuti ku amul dara mënu kaa joxe déedéet ku amul dara te ngay sonn rek mënu kaa joxe te nag gis nga taalibe yaa ngi commencé yeewul aha xam nañ ñi xamle ak ñi dul xamle ndax nga nekk ci daara dem marché yaa ngi dégg dugg yi léeg-léeg di xidma mboolem xidmaat yi nga te yow yëgoo dara xam nga loolu caaxaan la. gaa yi commencé yow te moo wax ne Serigne Fallou Mbacké ne woon na sa taalibe su yeewoo yeewi ko balaa moo yee ñeneen ñi sa taalibe su yeewoo yeewi ko balaa moo yee ñeneen ñi taalibe yaa ngi commencé yeewu nag di xam ndekete xam yàlla gaa nga ca góor ga mooy Medina Baye Niass kaw la. Hmm? Baye Niass radiyallahu anhu moo ko wax ndax euh, ci abyaat yi euh, Serigne Baye Niass moo ko wéyoon sax fala aarifun illa bi baabiya waaqifun udiru wa usqi qawma turran bi faydati wala bi benn aarif billahi ci sama bunt ngay taxaw te ko sa yàlla may ko beneen karaama mooy kum toogal nga d'accord bàyyi kum bokkal jotaay nga nangu ba ci sanaaul ulama yi ali sanaaul ulama ci fii am na benn borom xam-xam ci Mauritanie gu mag a mag a mag a mag tudd wul dedew wul dedew mooy dafa am ittihaad benn rabida boo xam ne borom xam-xam yi adduna bi borom xam-xamu lislaam yi ñoo ko teg wii président bi moom moo ci tegu moom wul dedew nga xam ne kooku du caaxaan moo yor markadu takfidul ulama ci Mauritanie waa ji borom xam-xam la macha allah du tiijaan de déedéet waaye nañ ko laaj kuy bàyyi lan la wax ci bàyyi. soo demee ci internet bi tapeel wul dadaw da ko gis wul dadaw ñëw Medina Baye Niass kaw la di jaale papa daam ci papa Cheikh lan wax ñu ne ko kan mooy ñu koy filmer kan dafa wax tariqa tijaan mu ne haadihi tariqa tijaaniyya mujaddiduha fi haada al asr Cheikh Ibrahim tariqa tijaan kooku xam-xam yi ittihaadu al ulama bi nekk ci adduna bi limam Xardaawi moom mooy président bi waaye moo ci teg du suufi yu sax mais nee tariqa tijaan bi ki ko beesal ci jamono mooy Cheikh Ibrahim Niass mu daal di teg nachara allahu biha hada diina ولها آيات بيضاء على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا ينكرها ولا يتنكرها إلا مكابر لولد دوكو ما تشد بيجي mu ne euh, tariqa tijaniya yàlla tasaare na diine l'islam ci tariqa tijaniya loo moo tax ma ne leen ñaari mbir rek tey ñooy élément yi gën a gaaw ci tasaare tariqa tijaniya mooy alquran ak faydu Baye Niass ndax Baye Niass neen bi fay di yanaalu diinu raf aliwaay man ci sama faydu gi la diine gi di am na yëkkati ko abadan bàyyee ko wax ndax faydu gi moom dafa doy waar day daw rek di tasaaro ñoo ngi ñëw ci oto bi sama benn xarit chauffeur bi mu ne ma xam naa Nigéria de taalibe yi mën nañ mat nañ fa juróom-ñaari million ma ne ko su la waa Nigéria dégg nag mère la quatre-vingts millions doomu aadama ñoo koy taadee bari seede baa ngi ni ci kenn la si ñoom te kii ni macha allah kilifa gu mag la foofu te ñii ñooy ran buntu xalifa bi su ñëwee foofu te ñoom ñooy kilifa yi foofu nga xam ne mbiru baay bi caaxaan ñu ne ko kuy bàyyi wul da daw mu ne acheikhu ibrahim rahmatullahi alayhi imtadda nuruhu min assini sharqan ila amrika garban wa shimalan ila nihayati europa wa januban ila nihayati australia wa janubi ifriqiya wala yazalu tullaabu yazdaduuna wa kaza xulafaahu li moom moo ko wax firiba de ñaar e eh? moo tax ma ni Baye bokk na ci borom xam-xami jamono dañ ko tagg gërëm ko benn waay ndeysaan borom xam-xam la ca ndar eh, nekkoon macha allah nitu yàlla lool nekk woykat day tudd Ahmed Iyane Sy Ahmed Iyane Sy waaw eh, taalibe la woon sax si Serigne Maam Khalifa Niass benn bés ñëw ziyaare maam xalifa boobu moo ngi sol tenue militaire ndax militaire la woon ci jamono ñu tere koo dugg xamuñu ki ñuy tere dugg nekk ci góor yàlla yi màgg yi la ci woykat yi la mu xëcc benn kayit ne qul lil xalifati abqa allahu xarmatahu bi ann shairahu bilbaabi qad waqafa yabgi ziyaratahu summa duaau lahu wa an yujaddida xaajan bayinan salafa yutal leen ma sëriñ bi kayit bi kayit bi ñëw mu lir ko mu ne bàyyi leen borom tenue yooyu mu dugg waji dug nek borom xam-xam tuubal ñu bari ay chrétiens yu bari ci ndax ñu ne ko lo wax ci bay mu ne barhama shaykhun tajallu lahu al mafakhir kullu hawa maqaman saniyan anhu al lmashaaihu kallu يقل كل shaykhun تقي نقي hadithuhu la yumallu من التقى لها واسم في وجهه مستقل له المواهب فيها فيد الغمامة كل مني إليه سلام أن التهايا يجل li mu wax daanaka soxlawul firi ndax dafa leer léeg-léeg arab dañ koy wax rek daanaka xaw comprendre sax li muy wax baraama cheikh baraama sëriñ la waxul jalilu ndegu mag mais ajallu ki gën a màgg ci sëriñ yi ki ko wax taalibe la ñu ne du taalibe xanaa kay seede bi ci gën a rëy mooy bi nga xam ne taalibe boo ko parce que taalibe su ko waxee kii dafa lab ci géeju mbëgg rek di wax te naam dëgg la sëriñ soo bëggee déglu ci moom xam ci moom bul déglu ku lab ci mbëggeelu mbëggeelu sëriñ ba jeex ci day wax ci làmmiñu mbëggeel bul déglu tamit ci làmmiñu noon kooku day ŋàññi ndax noon la déglu borom xam-xam gu maanu gu mel ni Ahmed Iyaan si mu ne la barhaamu cheikhun ajallu lahu almafaaxiru kullu almafaaxir mooy ndam yi ñuy ndamoo ci yàlla moom làq na ko moom bàyyi kullu léppam xanaa kay foofu la wax ji wax ji yem Cheikh Abdou Aziz si Tiwaawoon wali yàlla gu mag alxaaji Abdoul Aziz si doomu alxaaji Malick si laa wax ci waawoon waliyu yàlla gu màgg góobu macha allah sooy seen wali yu ba nga dajeeg moom jàppal ci yàlla koo xam ne yaakaar naa garab yi sax bëgg nañ ko xeer yi doj yi kooku ah, ko moo moo ñàkk ki ñaan kooku su gisee dégg def koy wax ndax waliyu yàlla la kooku mooy doomu alxaaji Malick si alxaaji Malick si jur nañu baax ba bëri waaye ku mel ni kooku mën gisuma ko si aha benn bés rek ndeysaan mu ne dareet Medina ah alaja bayani ko señ bi soy ñew kay dem ñi woñu préparer la yow nit ku mag nga soy ñew dañ ko wara yek ma sha Allah mu ne man ma teud guddi gënt jabalu abi qubay sin ñew di tawaf di ziaré bay ci jabalu abi qubay sin nek do ca mak ma ne kon man abdou ali waruma tok fi ci tiwawon do ci di ñew di ziaré ba tok mu def qasida qasida bi day def ñay ku nekk gis na xasida bi ci diiwaanam yi kooku bés bi mu génnee àdduna la asamaan woon na nit ñi ne ki génn àdduna ci ñi gën a màgg ci wàllu yàlla yi ci kutb yi la bokk moo dajale rassemblé macha allah Sénégal su nekkuloon moom konoon ni Sénégal bindoonu bindoonu ndax pàcc pàcc yi daa bëri ñëw li jënti ko ñaw wan ñu ne ñu ñëpp démb ci fenn fi lañ fa fekkoon ñoo bokk yaay ñoo bokk ne xaytu bàyyi ñes la woon macha allah soo xoolee karaama ci mbiru karaama wali yàlla yi bàyyi macha allah dafa bëri ay karaama lool bokk na ci nga ne man nga wax bàyyi képp ku ànd ak moom dootoo taalibi sëriñ nga man man seetlu naa benn affaire taalibe bàyyi muqaddam yi kenn ku nekk comme que nga nekk yàlla kii bàyyi ndeysaan ndekete amul ku ndaw ndax ku mag soo sentiree ku mag rek yow ku mag nga ndax bàyyi ñas nee ne al kabiru huwa allah aw ma xibbu yàlla ku ku mag mooy yàlla wala ku bëgg yàlla mag mooy yàlla wala ku bëgg yàlla et bàyyi bokk na ci karaamaam ku jokk ci moom jokk mhm. bari na wali yàlla yoo xam ne jokk nañ waaye léeg-léeg nit jokk ci ñoom te du jokk waaw parce que ay maqaama la tamit bokkul nit ki mën naa nekk wali yàlla yegg yàlla xam yàlla am maarifa billahi am ulumu sharia maanaam feesal zahir waaye su nit ñëwee pour mu yeggal ko foofu ngir mi nekk ay jafe-jafe waaw gis nañ waaye nag bàyyi waxuma la moom waaye waxuma la sax ku jokk ci moom waxuma la ku jokk ci ku jokk ci moom waaye nag nee naa mooy zam-zam zam bokk sax boo ko naanee màkk wala da ngaa jonjox ku jógee màkk wala nga jonjox ku jonjox ku nga jonjox ku jonjox ku jonjox ku jógee màkk zam-zam moom màkk la rek bàyyi nag mooy zam-zam yi xam yàlla sax boo ko mosee ci bàyyi la wala ci ku jokk ci bàyyi ci ku jokk ci ku jokk ci wala ku jokk ci ku jokk ci ku jokk ci bàyyi muy zamzamul arwaax yi muy kawsarul nufuus moo tax kenn taal bokk na ci ku ci jox ko rek te man damaa jaaxle muqaddam bi da ngay gis muqaddam boo xam ne xamul dara naam ndigal li rek la am mooy fooy bi lijaasa bëgg na ne ñaas jox nañ ko lijaasa xamul dara du ci zahir du ci baati ku mar yàlla ñëw ci moom ne ko damaa bëgg xam yàlla mu jox ko ngir ndigal li lijaasa bi bàyyi jaar ci defar waa ji ba yeggal ko ci péeb yàlla gi waa ji sax su yegg muqaddam bi sax waa su yegg dee jaaxle nan la yeggee ndax moom def ko ci moom dara nga xam ne mbir maa ngi ci loxo bàyyi man it tasa la bii it tasa la képp ku jokk ci moom jokk du ci du ci ñun de eh du ci ñun du ci muqaddam yi de waaw du ci ba ah nañ nañ daw rek ba kii ak tey Serigne Diop moom dañ leen ko laaj def. dañ bàyyi rek ñun suñu lii mooy jàppee moo tax. Eh, ku jokk ci moom jokk loolu ay macha allah ay kéemtaan yu bëri na. Ah. Euh, Baye Niass nettali na ne ba mu ajee ajam bu njëkk ja moom Baye ba mu demee ajam bu njëkk ja daje naag benn wali yàlla yaa ngi dégg de wali yàlla baa ngi tudd Mouhamed Ali na Suusi Baye nee na waxtaan nañ mu laaj yu bëri ma ko tontu ko ko macha allah gis nga waa jii nii dafa yéemu ci Baye Niass def ko ne waa Ali na Suusi moo ne bàyyi Niass sadaqa man qaala al Huseyn al Ifrini assuud maadin al wilaya Huseyn al Ifrini xalifa Cheikh Tidiane boobu moo ne woon ñit ñu ñuul ñi ñooy mbelluk wilaya ñit ñu ñuul ñi ñooy mbelluk wilaya moom la ñuy gasee wilaya fa la ñuy mu ne Ahmad Sukayrij di wax na ma ca mbir yow Baye waa ji moo wax mooy wax ak waa ji mooy wax ak Baye mu ne ko Ahmad Sukayrij wax na ma sa mbir nee na an innaka aalimu suuda yow yaay borom xam-xamu ñi ñu ñuul xam ngeen dégg-déggee nga fas ngeen ci bàyyi xel ndax dafa njëkkee wax ne Xuseynul Ifriidi xalifa Cheikh Tidiane boobu nee ne Xuseynul Ifriidi nee ne ak suudu maadinul wilaaya ñi ñu ñuul ñi ne mbellug wilaaya mu ne nag Ahmad su koy ñetteel la ma Cheikh nee na ma innaka aalimu suudaan yow yaay borom xam-xamu ñi ñu ñuul Ahmad su koy moo ko nitee Euh, bàyyi na sa dalaa lii bisaar la nekk ne moom mooy borom xam-xamu ñi ñu ñuul ñi te ñi ñu ñuul ñi ñoom ñooy mbelluk wilaya soo demee ci atijaniyatul mustaqbal téere bu tudd atijaniyatul mustaqbal ka ko defal dëkk Soudan nee ne assuudu miftaahu mafatihil fathi mbir mi jeex benn assuudu miftaahu mafatihil fathi kenn xamul nañ koy firee maanaam fatku bi caabi yi mu ñit ñu ñuul ñi ñooy caabi caabi yay ubbi fatku yi assuudu assuudu miftaahu mafatihil fatih eh, Baye Niass nee ne bu njëkk ji toog naag benn waay bu tudd Tayyib Mouhamed Soufiane Tayyib Mouhamed Soufiane invité ko ñu waxtaan xam nga góor yàlla yi dañuy xam góor yàlla yi góor yàlla yi dañuy xam góor yàlla yi ba mu waxtaanee ak Baye mu xam ne kii du xale mu ne ko Cheikhu Tidiane bi muy génn àdduna dafa jël lam yoroon ci secret yépp tasaare ko ci ñeenti muqaddam bu Hadwa Taalib ak Seydi Abdul Wahab ibnul Ahmar ak Muhammad ibn Abi Nasar yaa ngi dégg de ak sama baay Tayibu Sufyaan maam eh, Tayibu Sufyaan ak ñoom ñoom ñeenti ñëpp bu bu Hadwa Taalib ak Abdul Wahab ibnul Ahmar ak Muhammad ibn Abi Nasar ak Sufyaan yi lañ amoon ci Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane dafa jël secret yépp jox leen ñoom ñeent. kenn ku nekk am nga lu sa morom amul ñoom lañ amoon dañ ko dajale lu lépp jox ko benn waaj tudd kan souci kan souci si moo ngi morom fa lañ ko suul ci ci bàmmeel ca marrakech dem naa fa daaw nee ne moom kan souci si képp ku taxaw ci bàmmeelam bi def wasifa soo paree loo ñaan yàlla yàlla nangu la ko moom moo ko wax moom kan souci ñu taxaw far ci naaj bi tànk ak marrakech ñu tàngee ma ne leen duñ dem lu dul def wasifa ñu taxaw def fa wasifa doog a dem kan souci nee ne la ko gaay joxoon dajale na lépp jox ko Ouseynul Ifrini Ouseynul Ifrini nee na la ko Kansuus si joxoon dajale na yëpp yëpp jox ko Tayyibu Sufyaan yi mii toog ak Baay Tayyibu Sufyaan nee na man nag melu ma ni ñooña fañ yegg yegguma fa dajale nañ mboot yëpp nag jox ma ko maa ngi lay wax la ma Ouseynul Ifrini waxoon mooy mbir yi yaa ñu ci gën a yellool maa ngi lay jël di la delloo mbir mi sa mbir la say mbóot la kon la Cheikhu Tidiane yoroon lépp séddale ko ñeent Abdul Wahab ibn Ahmar ak Muhammad ibn Abi Nafar ak Buu Xadwa Taalib ak Tayibu Sufyaan dajale nañ ko jox ko kan suusi kan suusi jox ko Huseynul Ifrini Huseynul Ifrini jox ko Tayibu Sufyaan yi kooku jël ko lem kon nekk bàyyi mbir bi sa biir ne affaire baa ngi Madina asaaruna sa jumlu alee na asaaruna sa jumlu alee na waaw ah. ba euh, Cheikh Tidiane ne suñuy jeexital def ñuy suñuy jeexital fu mu nekk foofa lañ nekk du mbooj yaa wa moo nga fa yatu Cheikh jawahir ah, jawahir eh, almaani Ali Harazi bindoon ci loxoom anamu moo nga Medina Baye su nekkee ne jawahir jawahirul maani Ali Harazi bindoo woon ci loxoom bay waa ji yokk annahu nahrun yamudduhu bahrun du wax bahrun sa waaye nahrun bahrun xam nga waa ji wax <laughs> ka annahu nahrun yamudduhu bahrun ma ne ko du bahrun bahrun كانه نار يمرت بها جواهر وابي حرازي فنكين جواهر معاني مومي سي باي بي ابي حرازي بيندو يف شيخ تيامن سي باي با باي بيند سي بشرى يهز الذي قد ازم ادركه اصل امام التجاني سرت املكه وغير ذلك مما لست الفزه لكنني هزت سرا ازم ادركه بمقبل الشيخ مسكتي مسافه باي بيندو كتي ها تيتو شيخ احمد التجاني te gis ngeen sëy di siraaja yoroon ko bañ foto ko foto ba fële ca aéroport euh, euh, yaa ni aéroport Nigéria yaakaar naa asuratu inde ko mooy yet woowa mooy woowa su nekkee mboot yaa fa waxuma la lii rek waaye affaire yi dafa bëri ya nekk foofu ndax sajaade Cheikh Tidiane la yaa ngi dégg ne ba mu daan moo nga fa am na ay sirru yoo xam ne nag شيخ تيان كو دغلي وون سي نيك نينن تيج كو ني بولين كو اوبي اسر انديا في بيت له غلق ضاعت مفاتيحه والباب مقفول لا يكتم سر الا كل ذي ثقه وسر عند لئام الناس مبذول بولين سر دنج كاي نيب امنا سر واي مان كو دوجال سي نيك تيج ناكو تيابي رير ناي واي باي بام نيوي تي مو سي يلو دنج كو كو بنياك فوف شيخ تيان سونيي جيخيتال ديف ني وان فو جيخيتال نيك فلا برم جيخك لأنك آثار ما تدل علينا آثاره دلت عليه فإنها تبقى بقاء سر دون تمحص بوبا يخبر لك كم تاني من الجيخ تابنا مونغي دم سما غان بي نين غيس نيجيريا دا فا وارا دم ايربور سو كانامي توتي توتي توتي دا فا وارا دم ايربور نان ليغي سام وارا نكو فيك سي هوتيل با موي بريباري بور بور دم لي لي ني وارا واخ ييب daanaka xaju ci waaye li ma bëgg a wax rek mooy Baye Niass radiyallahu anhu nee na moom karaama bi ko gën a yitteel te karaama lañ doon waxtaanee mooy karaama bi jaxaase tilimu wax doomu aadama ba mu jëmm yàlla gi ràññee lu yàlla ak dul yàlla Baye looloo ko indi woon avant Baye di ñëw gis nañ ñu tarbiyu ay fanweeri at avant Baye di ñëw gis nañ ñu tarbiyu ñaar fukki at Cheikh Imam Abdul Qadir Jeylaani ñaar fukki at juróom la tarbiyu ci àll Bagdad kun xam san way sigi na san wax في سهار بغداد أجول في سهار بغداد 25 سنة أه كنت أقتاف بخرن بشوكي وقمامة البقل وورق الخس على شاطئ النهر xobu salaat ak ñam bi sax ci àll bi mu nekk ak rabu àll yi yaa ngi dégg de toog di toog koom sedd bi di sedd koom muy naan ndoxu déeg di lekk ay xob ñaar fukki ak juróom mu doog a yegg yàlla di wax allah akul wa zaril wujuda wa ma hawa in kunta mutanas di doog a kabaay bàyyi ñes ñëw ne loolu jeex na man wa atwil man qad habbani kulla mahmahin ilal xadratil ulya walaw kuntum anisa képp ku bëgg yàlla ñëwal man dinaa leen àll gi jaar sa digganteeg sa borom ma sànni la ci péyub yàlla gi walaw kuntum anisa donte damaa joxoñ su ma joxoñee rek la a jege sa buumu xol te sa buumu xol du dara ci yow ko dindee ci ko waaye la ko a jege kon nag kooku balaa ngaa gis nga war a a gis kon bàyyi neen su may yegsee ci yow damay joxoñ rek nga daal di yegg ci péyub yàlla gi loolu xéewal la looluy karaama gi gën a màgg moo tax nit ñi di werante ci karaama naaw ci géej gi laysa al waliyu lazi bi elmi yastahiru wala lazi bi uluwi yantasiru kay naaw ci géej gi neen kay kay dox ci géej gi jën yaa ngi koy wax du kéemaan ndax ay mbindeef yàlla lañ te ñun ñoo gën a mokkal ndox mi sooy naaw ci jaww ji pitax yi ne lañ awalam yaraw yo tayri fawqahunna saffaatin wa yabitna maa yumsikuhunna illa Allah naaw ci jaww ji waaye mbir mi mbiru xol la raxasal ma sama xol dindil ma kiiraay yi ba ma janam yàlla ma ràññeelu yàlla ludul yàlla allahu kaana walam